waxuma tawféex waaye da ngeen am xaas tawféex ju ànd ak xaas la bu baax. te bu ci kenn mag secret sëñ bi xasida yi moo gën a gaaw moo gën a gaaw ci jege sëñ bi moo gën a gaaw ci am ngërëmal sëñ bi moo gën a gaaw ci defaru doomu aadama kon sëriñ bi nee man du ma dem ci hôpital ba ñi di ma jox ay garab ngir sama bopp bi métti wala ngir sama yaram wi métti ndax isam tadaxatul muntaqa sujaa saqali xayril badanil aw jaa saa su ma tagee yonente bi mboolem xeeti métti tak tawat yu nekk sama jëmm yëpp day daal di wàcc kon man yonente mooy sama docteur sifa u jismi wa sifa u xalbi muhammadun sala alayhi rabbi kon sëriñ bi nee ne suñu borom moo ko doy loo ci boppam mu wér peleng ba nga xam ne du soxlaal benn docteur nga xam ne du dem mukk ci benn docteur mu di ko faj fu mu toll rek boroomam subhaanahu wa taala moo koy fajal boppam moo tax mu ne bara anil baaqi min al aswaa yi yàlla mii aji sax ji moo ma setal ci lépp lu ñaaw waaye mustaxniyan bi suxi an dawaa yi moo ma doyluloo ca moom ma ànd ko wér te du ma wut ay médicaments yoo xam ne moom lay saxaroo yàlla rek moo ma doyloo ci moom wéral ma ci moom moo may fajal boppam moom borom bi subhaanahu wa taala dégg nga mu delle tegaat ci ne yëqi rajaiya alkarimu qayba ni xayrul baraya jayba yëqi dana fegal rajaiya samag yaakaar alkarimu yàlla muy aji tedd ji moo koy fegal lan xayba ak sooy ni tàbbal na ma xayral baraya ngën ci mbindeefi yàlla yi jayba ci biir poosam ba mu ne yàlla muy aji tedd ji nga xam ne bala nga koo ñaan mu defal la maanaam moo ma fegal may yaakaar dara ca moom ba noppi sooy nàkk lu ñuy wax nàkk diw yaakaar na tey dara taxaw sa loxo rek di torox lul yàlla yàlla yàlla nag ma yërëm di sonnee rek te doo gis tus fekk am na bàkkaar yoo def nangam wala diw dee yaakaar na ci sama mbokkam julit nangam mu fajal la sa soxla soxla boo xam ne bu bu la yitteel la te mën a ko ñàkk nga dem sa yaakaar tas nga defee ne nii lay amee nga dem sa yaakaar tas mu ne yàlla nag du tas sama yaakaar mukk yàlla du sooyal sama yaakaar yaqiir ajaa iyal karimu xayba adaxalani xayrul baraya jeeba ngeen ci mbindeef sallallahu alayhi wasallam tàbbal na ma ci biir poosam yonente bu ne xam nga yonente loolu waxin la rek day wane ne damaa tëqoog yonente bi ni poos di tëqoog jëmm xam nga nit ki ñaare lu soxla ci poosam la koy def jeeba sax ñoom araab yi xol lañ ko daan wax maanaam xol lañ ko wax xolo doomu aadama maanaam bi daal heure bu ne xolam sëñ tubaa waaye bu misaal ko rek léegi nag poos lañ koy tekkee muy jaay ba poos moo tax yëqin dana fekkal raja yi sama yaakaar alkarim yàlla muy aji tedd ji xay ba ak sooy ada xala ni tàbbal na ma xayrul baraya ngën ci mbindeef yàlla yi jay ba li nga xam ne mooy poosam lil Moustapha ñeel na ka ñu tànn ka xayru salaatin gën ci julli wa salaam ak sëlmal bilaa nihayatin gudut ak yemukaay gudut am yemukaay kama maha comme ni ko mu faree almalaam yeddaange yi ci man ne ne ngën ci salaatu wasalaam julli ak sëlmal ga ca gën ñeel na ka ñu tànn julli goo xam ne du am yemukaay mukk sëlmal goo xam ne du am yemukaay comme ni mu dindee ci man lépp luy xeeti yeddaange yonente bi salaay salaam lépp lu duy yeddee doomu bi yonente bi moo fexe ba dindi ko ci man nga xam ne man kenn du ma yedd kenn ku ma yedd amut yonente bi fexe ba lépp lu nuy yeddee doomu bi rek bu fexe ba dindi ko ci man loolu kon tawfeex la léegi kon buntu boobu buntu boobu jeex na muy maalal muxsinina min sabilin léegi day jëlaat beneen buntu ñu koy wax allahu laa ilaha illa wa hayal quyum allahu laa ilaha illa wa xam ngeen ko mooy aaye ji gën ci aaye yi nga xam ne mooy aaye alquran yi alquran bu ñu la laajee ban aaye moo ci gën dang naan allahu laa ilaha illa wa ñi ne la saar nga ne fatiha nii la demee kon ay jigéen mooy allahu laa ilaaha illaa huwal qayyuum ñëpp dëppoo nañ ci dañuy jàpp ana borom xam-xam yi wax ne sax siru a ahsam ci la nekk ngir yonent bi ci xare ba dar doon na ñaan yàlla ci turam yoon naan ko yaaxu yu yàqu yoom yàlla yàlla mu indil dimbal yàlla mbooloo su tuuti si de suñ la notee bis ni ko tey doo am kenn ku lay jaamu ci kaw suuf yàlla indil ko dimbal te mooy ay malaaka yu koy jàppale kon alaa yul xuyum ñett yoon rek la ñëw ci ak allahu laa ilaaha illaa huwal qayyuum wa annatil wujuuhu lil hayyil qayyuum yoon rek la ñëw ci alquran ba alquran jeex kon allahu laa ilaaha illaa huwal qayyuum muy tur yooyu nga xam ne turu tur tur yu yàlla ci yàlla la nga xam ne mooy dund dund gi dara du ko gàllankoor mooy ki taxawee mbiri jaam te kenn du ko taxawee gis nga alxayu alxayum allahu moom yàlla ci dëgg-dëgg laa ilaha amul benn buur ilaha wandere moom alxayu mooy aji dund ji te du faatu alxayum mooy aji taxawee kenn ku nekk li li nga lekk wërsëg wa nga am lépp saa borom moo la ko jox mooy taxawu ba ci ñanaaw yi sax yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na yéen mbindeef yi law anna law annakum kuntum tawakkaluuna ala llaahi haqqa tawakkulihi la rusuqtum kama yursuqu at-tayru waaw taqudoo ximaasan waaye wa turuhu bitaan nee na yéen mbindeef yi su fekkoon wakiilu ngeen ci yàlla dëgg-dëgg wakiilu ci yàlla yéen ñëpp jox ngeen seen lépp yàlla nee ne waat naa ne ko loon yàlla dañ leen wërsëgal comme ni muy wërsëgalee njanaaw comme ni nga xam ne noonu lay wërsëgalee njanaaw ndax nee na bu xëyee di ngeen nii dañuy xiif dañuy yàkkamti dem rek wuti luñ duy seen mbaax tey waaye nee na balaay ngoon day fekk ñu regg moo tax picc ñaareel foo ko gis ngoon rek mu ngi ndax ñoom loolu rek mooy seen lekk loolu ci leen yàlla gind allahu la si xalaqa kullu shay'in suma hadaa loolu mooy hidayatul am nga xam ne ñooñu moom dañu leen gind ci luy seen intérêt bopp ñoom bu xëyee amul jaamu yàlla seen jaamu yàlla boo ko doon misaal te mëntu ñàkk te te mantu ñàkk ñoom mooy xëy wuti luñ lekk ba noppi indil ko seen njaboot lekk wala indi seen njaboot dégg nga kon alxayu yàlla mii aju dund ji wal xayuumu tey aji taxawee mbiri jaamam yi xaada kooku wommat na lii jëmee ci man alminan xéewal yi bi jaahi man ci daraja yonente ba nga xam ne ab daa na alfuróoda ya ñu farataal ye wa sunnoon ak sunna yàlla muy aju dund ji te du faatu yàlla muy taxawee mbiri jaamam yépp yàlla moomee moo ma womatal xéwal yi ah yàlla mooy xëyam di moo ma womatal xéwal yi waaye ci darja yonent bi nga xam ne mboolem yi yàlla farataal moo ñu ko jàngal mboolem sunna itam moo na ko wan yoonu sunna moo na ko wan nuñ koy toppee moo na ko wan waaye li yàlla farataal itam yëpp gàll ñu ko farata yëpp moo na ko wan xaada womat na lii jëmee ci man maa loo xam ne faa kawe na as sunoona njorto yi kan faxel ji mooy ay alxayu yàlla muy aji dund ji te du mima ci loo xam ne yesuru nii dana ma bégloo wasaakata lool sax di ma bégloo tayyu ak taxañ la maanaam lu ma yàlla taxañal la yàlla muy aji dund ji te du faatu wom matal na ma loo xam ne fiitee na kaw sax la ma doon njorto yëpp mboolem njorto yëpp wom maanaam fiitee na ko kaw waaye loo xam ne sax tax may bégloo la li ma womatal li may bégloo la doonut lu may merloo te neen loolu sax lu ma yàlla defal tayu la ba ma ko soxlaa rek la ma ko yàlla ñoddil ma jot sa sansa yëquudu dana womatal jëm ci man li ya jëmee ci yoon maa loo xam ne yëkkoonu dana nekk ajjabaa di kéemaan ci ñëpp kan moo ko def faxel ji mooy baaxin yàlla mi fee sax ba faw mun tey aji tedd ji moom yàlla yuroxi dana tarqiyaa bii ci sama jëmu ji an nu jabaa i tànne fii tànne fii dañoo dagg xam sa gi an nu jabaa la nag yàlla dana womatal loo xam ne dana doon kéemaan ci ñëpp wa jaxtali maa laa yasaalu ajjaba fii abadin li saa dina nu jubaa gis nga si wakaanaa xam ne yàlla jox na ma loo du dañ mukk di yim ñu baax waaw ah, du dañ mukk di yéem tànneef yi yonente yaag ñëpp sëñ Tuubaa da leen yéem moo tax suñu bara wamatal na ma loo xam ne du dañ mukk di yéem di yéem mboolem baax ñi ki ma ko defal mooy yàlla mi fee sax ba faw tey aji tedd yàlla moomee képp kuy jëm ci moom yàlla di yéeg jëm ci boroomam mi ngi koy tarxiyaa ci man ci man la ko yàlla di yéegalee mu yegg ca moom koo koy may sant di ko wax nga xam ne moo ma defal lii lépp wammatal ma lu féete kaw samay njort jox ma loo xam ne dana yéem ñëpp matal ma xéewal yi yëpp huwa kookee may wax al ilahu mooy buur laa ilaha amul benn buur ba yeyoo jaamu jaamu ko du jur njëriñ ñàkk ngaa jaamu ko du jul lor xayruhoo kudut moom wooye ji u dana dikk may ruxoo xontam lii jëmee ko ci man bi amaanin àndi ko sécurité yàlla moomee may wax mooy buur bu yell ñi jaamu ko ku jaamu kudut yàlla loor la la lay gën a def ci jëriñ la yàlla moo yeyoo ak jaamu njëriñ loo mën a am ci yàlla la bay ko lor goo bu mën a dal ci yàlla la bee kon yàlla moom rek moo mat a jaamu yàlla moomee xontom muy xéewalam saa su nekk day dikk waaye xéewal gu buy dikk day ànd ko sécurité xam ñaareel xéewal du jur sécurité ndax ñaareel borom alal yi gis nga ni ñu sonnee coon rek ci lañ dëkk waaye moom xéewalam yëpp sécurité la layena nooyalal na lii ñeel ma alxuloo ba xol yi rabbul alamina yàlla muy borom bi defi waxaarite wa mat na lii jëmee ci man siral amini sekk reb ka ñu wóolu ko wala amin ak ka ñu wóolu ko yàlla nooyalal na ma xoli bi def yëpp moo tax waxoon ne ne yàlla daf maa jegleel maanaam xoli mbindeef yi maanaam seytaane daf maa njëkk ci jëmm yi ma njëkk ko ci xol yi moo tax sëñ Tuubaa moo nekk ci xol yi loolu moom jamono ci nekk day gën di feeñ bokkoon na ca lam dénkoon mag ña ñenn ca mag ña ca mag ña dana li ma jaaxal de yàlla jox na ma ak euh, euh, maanaam njëriñu ëtt na waaye gisuma sama bopp daal ne de damaa donn yónente yàlla Suleymaan ci wàllu alal dama ko cee donn te loolu samay sët ci lay feeñee defe naa ne loolu ñëpp gis nañ ko defe naa ne jumaay vingt milliards kenn gisagut ko waaye damaa doon itam yonent yàlla Insa moo tax ñu bëri naan ma yàlla nga waaw waaye itam damaa doon yonent yàlla Moussa moo tax nga gis coow li coow li bëri ñu bokk ci yoon yi ak ñu ci bokkul ñëpp daal di ñëw di ci dugg dégg nga loolu yëpp leerloon na ko bokk yi kon sëñ Tuubaa loolu yëpp da koo donn moo tax mu ne yàlla nooy la na ma xooli mii bi kon xool yëpp da ngay gis koo xam ne tabaarkalla bàyyi na léppam ndeyam ak bàyyam ak léppam dem jox léppam sëñ Tuubaa ngir lan bëgg a jekk xam ne moo yor mbir yi loolu def naan jegle boobu ci lislaam gis ne moom rek moo ko gis ne rek gis nañ ne moom rek moo ko am yàlla nooy lanoo xooli mbir yëpp waaye wommatal na ma sekkereb ka ñu wóolu ko ak ka ñu wóolu ko muy sekkereb ki nga xam ne muy sekkereb ki nga xam ne mooy yonente bi salaay salaam siróom ba araytani sirra rasulallahi def naa ne ku wax ne yàlla wan siru rasulallahi kooku dese deselatoo yàlla dara yàlla wan na la lépp lam la doon wan bu demee ba lay wan sirub yonent bi te sirub kenn xamul ko daraja yonent bi kenn xamul ko mbindeef yi buñ ci wanoon lenn rek lenn rek daraja yonent bi ñu wan ko kenn ki gën a yéeg ci xutbu yi ki gën a kawe ci awliya yi day sooy mënu koo xam man si la bi yonent bi sallallahu alayhi am ci yàlla moom nag yàlla far wan ko siru ba nag kéemaan la ma doon waxaare wa mat na lii jëmee ci man siral amin yi sekkereeb ka ñu wóolu ko wala amin ak ka ñu wóolu ko wala amin ka ñu amin bu njëkk bi mu ngi ci jublu yonent bi salaay salaam bu dee amin bee nag mi ngi ci jublu ki nga xam ne mooy jibril alayhi salaam léegi-léeg nag mu wax amin jublu ci yonent bi ak alquran waaye fii yonent bi ak jibril la jublu ci amin ya seen ñaari secret yëpp yàlla wamatal na ko askuruhu sant naa ko alal amini ci amin gi wala amin ak ak amin gi li muy tekk mooy ku ñu wóolu gi mooy womatal gi moo womatal sirub yonent bi ak sirub jibril sant naa ko ci ci ñaari amin yëpp neex ma est-ce que alkarim moom yàlla muy aji tedd ji alfardu tey aji wéet ji rabul alamin tey borom bi di fi nee naa ko moom yàlla moom mi nga xam ne mooy aji tedd ji mooy aji wéet ji mooy borom bi di fi ilaa siwaa daw na jëm ci ku dul man addurro mboolem xeeti lor yi ka saytaane ñi ko sayaati ni yëpp maa lahuma déet di ñeel leen ñoom ñaar xaalee ci man min sultaani benn pouvoir benn kattan nee na saytaane insi ak saytaane jinne yëpp daw nañ jëm jëm ci ku dul man lépp luy lor itam daw na jëm ci ku dul man du ma jublu te nee na saytaane ak lor fu ñu mën di nekk duñu am ci woon benn pouvoir benn kattan mënuñ ci man dara na biir na lii ñeel ma kaw nu jumlatil umóor yi nekku mboolem mbir yi li saarefil mawti ñeer yàlla muy aji wëlbati faatu gi ma waroon a faatu ilal amir yi jëmee ko ca buur ba dégg nga nee na biir na ma leer na ma naññi mbir yëpp seen nekk nekk giñ nekk xam nga loolu kenn xamul ko xam nga dangay jàng mooy alaaluhul xal wala mu waaw léegi bu fekkee dana yàlla mooy ki nga xam ne mooy ki moom mbir yi xam mbir yi xam mbindeef yëpp sëñ Tuubaa nee na loolu man leer na ma ah xaalamul amri yi mbir yëpp mbir mooy ni yàlla di doxalee diw day ñàkkam diw day woppam diw day am doomam diw du am doomam dana dund ba dee nangam day gaaw faatom day yéex faatoom atam yi danañ bërim loolu mooy mbir yi nga xam ne kullu yow mi foofu fii sax ni bis bu ne at ni yàlla di dem waaye fekk na yàlla jiitu na programme ak yàlla yàlla boo déggee mu ne bis bu ne ak yi muy feeñal bindatul dara te borom xam dañuy wax ne loo gis mu judd wala loo gis mu feeñal ci ay kemtaan rek lu mu feeñal la waaye fekk bindoon na ko bu yàgg maanaam lu sotti bu yàgg léegi nag mu toll ci mu koy feeñal benn par benn jamono ji nekk ak la muy feeñal jamono ji nekk ak la muy feeñal ci ay awliya ay nit ñu waaye jamono ji nekk la muy feeñal ci ay nit ñu bon jamono ji nekk la muy feeñal ci ay milliardaire jamono ji nekk la muy ñoo xam ne amuñ dara kon gis nga sëñ Tuubaa ni mbir yooyu nag nga xam ne yàlla lu koy feeñal bis bu ne man leer na ma naññ ngir lan walbati gi nga xam ne moom la wëlbati sama dee jëmee ko ca buur ba kon yàlla bu la wëlbatee dee nga xam ne nit ki boo gisee mëntu xam dara mooy dee moo dox ci kanamam dee ak lëndëm la dafa dox ci kanamam moo tax ñi yiir ko lépp lu war a xew ëllëg waaye yiir ko lépp lu ko lépp lu ko romb waaye bu ñu la wëlbati loon dee nga xam ne dootoo faatooti loolu tabaarikalla man ngaa man ngaa xam mbiri yàlla dogal yëpp man koo xam ah man nga koo xam parce que yow ki dox sa diggante ak yàlla ak dox sa diggante lépp mooy dee fu ne am na ñoo xam ne dee rek lañ ragal ragaluñu yàlla sax mais dee rek lañ ragal lii baana baana bir na lii ñal ma kaw nu jumlatil umóori nekku mboole mbir yi yëpp maanaam leer na ma naññ yàlla ni muy defee mbir yi ci xarañte fam lépp leer na ma naññ li saare fil mawti ñeel yàlla muy aji wëlbati sama faatu gi ma waroon a faatu ilal amiri jëmee ko ci buur ba in sarax wëlbati na al mawtu dee ilal amiri jëmee ko ci buur ba wax laali si waaxu keneen bokkul kudut kudut moom woowu moom yàlla in xaraf jéngal na jëmi buur boobu li naari jëmee ko safara nee ne saa borom subhaanahu wa moo wëlbati jëmmi faatu jëmee ko ca buur ba moom dong kenn jàppale ko ci du benn malaaka muy raye yàlla ci boppam moo ko faatal boppam mu wëlbati dee këpp ko ci kawam waaye nekkoon dafa yebal jibril mu di ko xaaju nekku ne dafa yebal israfil mu rey ko mu jël suróom déedéet yàlla ci boppam moo jël dee këpp ko ci kawam waaye moo koy jibbu itam jengal ko ci may ko safara moo tax insaraf wël wëlbati na euh, ilal amiri jëm ci buur ba almawtu ak dee wax doo moom dong laali si waaw keneen bokk ku dul moom waxu moom te in xaraf jéngal na ko sax li naari ko safara dégg yàlla àll si mooy ki nga xam ne insarafati wëlbati na makaar yi sama naqar yëpp la koo jëmee ko ci kawam këpp ko ci kaw buur ba ah kama arafati ni ni ki noonu la ko xamalee jundul ali soldaaram muy malaayikaam yi moom yàlla muy aji kawe yàlla wëlbati na mboolem li ma naqari woon yëpp këpp ko ci kaw buur ba ba noppi xamal ko malaayikaam yi xam nga yàlla daraan def lu mu war a alak malaayika yi lay jox ndigal ñi alak ko ku mel ni jibril gis nga mu xaaju leen rek ñoom ñëpp ñi faatu wala mu jël suuf rek dippati ko rek nu mu niti lóot ña léegi nag yàlla moom moo defal lii boppam moo faat moo faat jëmi buur bi boppam moo ko faatal boppam jibril bokkul ci ndax mënoon na koy faat yebal malaaka ma ko faat waaye déedéet da koo def noonu ba noppi moom yàlla xamal ko malaaka mi na maa ko def man yàlla loolu kéemaan la huwa lazi makaari in sarafati law kama jundul ali arafati léegi nag mu ajaabani al ayyu ma al qayuumi wala yasaalu al qibbu bil mahyuumi ba tey mu ne ajaabani nangul na ma sama ñaan alxayu yàlla muy aji dund ji te du faatu ma alxayoomi ànd ko taxawee ay mbiri jaamam te kenn du ko taxaw wala yesaalu du dëj mukk alxibbu yàqkat ba da iblis bil max yoomi doon koo xam ne ku ñu jàqloo la fu toll day day gëlëm rek waaw iblis ndax iblis pexam dafa am ci kum koy jaaree fu ne buur bi iblis mo pexam iblis la yoroon Iblis dafa jël pexam jaaree ko ci buur bi muy sonal Sëñ Tuubaa waaye itam Iblis dem na ba xam ne ndeke amir bi manu dara ci Sëñ tubaa mu mujj nag jàq fu mu toll day jàq fu mu toll day jàq ndax kii rek la dese woon kii rek la jàppoon ne bu ma jëlee soo mission te mooy mission yàq te Sëñ Tuubaa mii li mu bëggoon a tëral mooy lislaam yëkkatiku kalimatu laa ilaaha illallaah yëkkatiku bu ma jëlee kii mën na ko yàqal ndax boobu moo yilif adduna bépp moo yilif Sénégal yëpp kon nag su ma jaaree sama pexe ci moom mën naa yàqal sëñ Tuubaa Iblis nag ba kii faatoo bi nga xam ne suñu borom alag na kii jël la naqaram yooyu këpp ko ci kaw Iblis dafa jaaxle ànd koog jàq moo tax ma ne walaay saalul xib boobu del max yóbbi waaye nag du jàq gi mu bàyyi yàq ba mu ngi yàq ndax moom yàqam du am muy yem sëñ Tuubaa nag si di ñu waxal ne walaay baal naa ko bi mu faatoo rek laa ko baal laataa muy faatoo dañ na lu gis nga li ko yàlla def wax na li ko yàlla def waaye li ko yàlla def ëllëg yomal mu ne waaye waaye waaye baxal naa ko baxal naa ko li wax ci rabbi ngeen jëmi sama borom àll si mi nga xam ne xafaa baxal na an nii ci man xafawtu baxal naa xanu wëlis ko bax da mawtin gannaaw dee goo xam ne da xafaa doxadal na ko sëñ Tuubaa nee na lu tex ma baal boobu xam ngeen lu tax damaa toog ba yàgg ma xalaat ne man sëñ Tuubaa mii ku bëri bàkkaar la moo tax mbindee buy fàttaliku lii rek ku la mën a tooñ da ko baxal maanaam boo fàttalikoo ne yow yaa ngi tub waaye di tuub di dellu ci yàlla lu la nit def nga fay kanaa xamoo ne yow tuub gi ngay tuub am na ku lay baxal ta muy yàlla sëñ Tuubaa neen damaa xalaat ne lu ma mos a def yàlla baxal na ma ko moo tax ma ne xafawtu adil ah daa i di li wàcci man nafaahum li xayri saramadan lastu alfon moo tax lu ma waaye man a def baxal naa la waaye nag du tee lu ma waaye def da ko gis ci àdduna yow man na ko gis waaye nag amaa ma lay ñaanal musiba nga faatu ma lay ñaanal musiba man sëñ Tuubaa du ma la ñaanal musiba déedéet waaye nag baxal naa la moom sama diggante yow set na wicc gis nga ni ko yàlla def li wàcci rabbi ya baal naa ko li wàcci rabbi ya ngir jëmi sama borom àll si mi nga xam ne xafaa baxal na an nii ci man xafawtu baxal naa an walis ko bax da mawtu gannaaw ak faatu goo xam ne daxa faa doo doon gannaaw bi ko yàlla faatee léegi nag dugg na ci biir bàmmeelam léegi man baxal naa ko waaw gis nga laataa muy faatu rek musiba yim daj fu mu toll ngi ca tawat fu mu toll malaayka yaa ngi koy tiital jibril la nga koy tiital yàlla nga koy tiital lépp luy naqar yàlla jël ko teg ko ci kawam lépp te mënatul ci sëñ tubaa dara dem nag ba yàlla faatul ko boppam sëñ tubaa ne léegi nag a ah, war naa koo baxal de waaye nag ndax bu ko sëñ tubaa baale yàlla da koy baal déedéet parce que yàlla am na lu mu ko gàll jaamam wala ko digal te buur bi da doon tere joxe asaka lu mel noonu yëpp julleeku woor ak yëpp da ko tere ku ko def aj makk makk kon loolu moom digganteem ak yàlla waaye amaa digganteeg sëñ Tuubaa moom loolu moom sëñ Tuubaa baxal na ko li mu ko doon teg yëpp sëñ Tuubaa baxal na ko waaye nag des na digganteem ak yàlla léegi nag li ko yàlla war a def ëllëg yomal xiyam ca safara ak faatu gi mu faatu naqar yi mu fekk ci bàmmeelam loolu nag loolu lay sëñ Tuubaa di nettali waaye moom moom baxal na ko li wàcc rabbi la si an afa afawtu anhu baxda mawti daafa waaye lastu oojiwu bi ma ko baalee itam déet may jëmale loxoo ci moom duwaa ak ñaan yëdduruhoo goo xam ne dana ko lor xam nga ñaareel nit noonoo la ba faatu nga koy ñaanal yàlla na gën a alal ko sëñ Tuubaa neen du ma ko ñaanal sax lor lu koy lor ci bàmmeelam mukk baxal naa ko waaye nag kon day des digganteem ak yàlla mu ne waxoo moom sax is dara xeeb na adduwaa ak ñaan yi ñu ne lu ko waaye mën a ñaanal da koy xeeb parce que ku gëmul yàlla boo ko ñaanalee du ko jëriñ dara ab yéeféer boo ko ñaanalee du ko jëriñ dara ci bàmmeelam ñaan yëpp da koy xeeb ab boo ko ñaanee lu mu tuuti tuuti donte benn xul wala laaw aar sax du ko xeeb day bëgg nga dolli ko waaye yéeféer boo ko doon ñaanal adduna ak li ci biiram wallahi day xeeb ñaan ka sëñ Tuubaa ne ne bi ma ko baalee du ma ko ñaanal ak lor waaye nag baal naa ko moom kon nag day des digganteem yàlla te nit ñëpp ko doon ñaanal itam day xeeb ñaanam day xeeb ñaan ya moo tax ne waxuus dara doxa u moom dana xeeb sax ñaan yi ñaan yëpp da koy xeeb inna la si moom buur bi li nga xam ne dammaruxoo moo ko alak bam faatu intiqaamu ab mbugal la min qaahirin gu bàyyi ko ci aji noq ji nga xam ne yëpp doo dana feeñalee bihi ci moom al maqaama nee na buur bi ki ko alak mu faatu not ko li ma doon def yëpp ki ma ko fayul mooy yàlla mi nga xam ne alag gi ko alag dafa am maqaamu mu bëgg a feeñal rek waaw yàlla dafa am maqaamu mu bëgg a ne maanaam noonu wëllu yàlla noonu nit ku baax dara jaru ko maanaam man xaadaani waliyan faqad asatoo bilaat bi nga jàng suñu borom nee na ku de koo xam ne noonu sama awliyaaw te yàlla waxul ko yónent waxul kenn awliyaaw la wax déclaré nga ak man ak xarit te kii sëñ Tuubaa la doon la doon defanteeg te te biraasu man baara sani biraasu man yu baarisul muntaxul baarisa man yu baarisul laahal jilil kullu salilin fa xoo kullu salil jasa uman baara sanarsil bukaa fa kullu man abkaa suu kursil bakaa demet demet kon ku noonu sëñ Tuubaa day mel ni yàlla ngay noonu ndax nim mel yàllaa kon dang naan ah kon kat yàlla mi def sëñ Tuubaa mii kat moom laa bëgg a noonu parce que yàlla ko def sëñ Tuubaa nu mel defal ko boppam moo tax inna lisi naka ka nga xam ne damoroo bombarti na ko xaamu ak mbugal la min xaaxir mu bàyyi ko ci aju not ji nga xam ne yëpp doo dana feeñale bii ci ma almaqaama yalla yàlla mooy feeñal maqaama rek ne kenn du laal ak waliyu ma màbbu na moom yàlla ma banaaw la tabaxoon na ko saalikal amir boobule biir boobule buur minal firaat ci ay sos ci ay nar mabbee na ko lan alxaqu dëgg ala yàlla mi nga xam ne loxoo aji nekk la ñeel ko al umur mboolem mbir yi nee na lam tabaxoon yëpp gis nga xadamtum xadamtuma banaaw kulla man jaxat minal fira bi xul wala at nee na liñ tabaxoon ca ndar mabbu naa ko ci ay nar ak sos di bokkaale yàlla yëpp mabboo naa ko ci xul wala waxat moo tax mu ne buur bi lim tabaxoon mooy lan mooy neen rek neen la léegi nag yàlla jël dëgg mabbu ko lañ fi sosoon yëpp yàlla mabbee ko dëgg xam nga a dem rek bu fekkee neen bu fa danoosee day mel ne mosu faa nekk moom nga jàng alquran ne bal naqsu bi laa xaalal baatili fa yatmaqu fa isaa wa saayiqun walakumul waylu mi maa tasifoona mi maa tasifoona nag mooy lañ doon def ci ndaaf di ko def feneen di bokkal yàlla di ko melal suñu borom nee na ñun ñooy sànn dëgg ci barab boo xam ne nee na fa nekk su ko defee rek mu mu mu yàq ko mu mel ni mosu faa nekk day naxasaay fa isaa wa saayiqun su ko defee ña nekkoon ci barab boobee di jaam ay xërëm yëpp tos ko ren ak ñeel na leen safara xuroo ca safara ñeel nan walakumul waylu mi maa tasifoona wujjuhu sax bil muntaxa xarxana muk saxaaba yi ka ñu tànn ka lan tan sayf wëlbatiku ba xabla xabla mawti njëkk ak faatoom xatu xorif boobu xamees na ko nee bi laataa muy faatu ci sukkuraat yu métti la nekk saa su xëyee jàkkaarloo xarxanamu ak seen ngàndaay yi ñii di ko xupp di ko tiital kon kii laataa muy faatu fekk na mu ànd ko tiitaange musiba bu ne dal na moo tax mu ne saa su xëyee rek laata muy faatu xarxanam xarxanamu saxaaba yi lay lay jàkkaarloo te lépp rek xarxanam gu ñëkk lañ koy wan saxaaba yi xam nga jàkkaarloo ak saxaaba gu ne xam ne lu neex la waaye saxaaba bu jàkkaarloo ab yéeféer loolu xarxanam gu ñëkk lay fiiñal ca moom da koy xupp xarxanam gu ñëkk am ñoo xam ne bala ñoo dee ay yàlla day yebal malaaka mu di leen xupp yor jëmm ju ñàng am na ko am na bu ñu dee jibril ci boppam la ñuy janoog mu yor taar bu rafet janoog yonent bi mu yor taar bu rafet dégg nga demet demet u jow saabil muntaxa lam tan sarif anil amiri qabla mawtin qad xarif aska salaatin gën kaa sell dollik taral man ka nga xam ne loxo aji nekk la ñeel ko al asmaanu jamono yëpp ala safi an yàlla na ko sotti ci yonent bi nga xam ne mooy aji ramu ji jaa koog jaa ah dañoo daka am sa jaa ah koog indil nanu bii ci moom al amaanu sécurité waaw njaa ah mooy kooku dikkee na bii ci darajaam al amaanu sécurité nee na gën kaa sell julli yàlla mi nga xam ne mooy kii moom jamono yëpp gën caa sell julleem yàlla na ko sotti ci bi nga xam ne mooy ajaramu nga xam ne ci darajaam ci la ñu sécurité dikkee ñun jullit ji kon moom rek benn la ci moom nga xam ne sécurité bi mu am ci tukki bi bi muy béy ko ci tukki bi lépp yàlla nga ko def lay ci barke bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lil Moustapha ñeel na ka ñu tànn ka alasi mooy ki nga xam ne damara bombarti na al amira buur ba biroox yi ànd ko rooga wa bi ak saxaaba ya bi baaxin ci kattanuk yàlla mi aji des da nga xam ne xamaraa koog dana dundale xam nga ba mi lay wax kon day mel ni buur bi kenn ku nekk day mel ni ndeke boo laalee wullu yàlla rawatina ku mel ni sëñ Tuubaa laal nga yonent bi laal nga saxaaba yi laal nga malaayka yi laal nga yàlla xam nga wax na ne yàllaa ko alak ba yàgg mu ne saxaaba yi ba yàgg mu ne yonent bi ba yàgg mu ne jibril ba yàgg mu ne saxaaba lii nag kenn rek lañ laal ñii ñëpp kenn ku nekk kenn ku nekk di danoosel kenn ki sëñ Tuubaa la ñuy danoosel kon kii mbugal mu ko dal métti na de mu ne yonent moo dellu bombartiwaat moo alak buur bi moo ko ruubi ruubi mooy kan jibril sax bi mooy kan saxaaba yi waaye lépp bi baaxin ci kàttanug yàlla lañu alégee buur bi kenn ku nekk ñëw na laataa buur bi di dee am na luñ ko def ci xeeti njàqare ak musiba kenn ku nekk mbombati nag kenn ku nekk alag na ko maanaam su doon misaal nga ne bala moo dee dañ koy dóor kenn ku nekk jibril dóor yonent bi dóor keneen dóor yàlla njëkk dóor ñoom ñëpp kenn ku nekk barkeelu ca hmm? laa ilaha illallah cettt hiba u baaxin mayug yàlla muy aji des min salaatin bu ànd ko jullem wasalam ak sëlmal yàlla na ko sotti ci yonent bi kama arda niki mu xale géey bi ci darja yonent bi al mumiit yàlla muy aji faat ku ko neex saa salaam ka nga xam ne borom tooñ la buur bi lay wax nee na mayu yàlla muy aji sax ba faw ànd ko julleem ak sëlmal na ko dotti na ko wàcce ci kaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam comme yàlla moom yàlla mi nga xam ne mooy aji faat ku ko neex moo ma alagal ki nga xam ne ab tooñkat la gis nga ba tey nee na yàlla moo ko alag xam nga ne ne yonent bi moo alag ba yàgg na jibril ba yàgg na sahaaba yi ba léegi mu ne yàlla day mel ni kenn ku nekk laal laal Sëñ moo tax kenn nekk maanaam manu cee ñàkk am wàll moo boo doonee wullu yàlla ñëpp nga noonu dañuy wax ne boo noonu ku euh, benn wuli yàlla martabaam wuli yëpp bala ngaa faat dañ dal sa kaw. boo sa kaw boo amul tawfiixu yàlla boo dee safar nga jëm boo noonu yónentu noonu la boo noonee malaayka yi la koo ci noonu ci gaa yàlla yi rek martabaam ñëpp danañ la dal. moo tax gis nga fi ko noonu wuli yàlla ba sonn deegu ñaaw ci la mujj jeex na kenn mënu ci dara yéex la mu xam na kon bi ko yàlla alagee yonent bi alag ko jibril alag ko saaba yi alag ko yéex la mu xam ma dana fayul lii ñeel ma albaaxi yàlla mi nga xam ne mooy aji sax ji bi moox yi sunna ni ci ki nga xam ne mooy dundal sunnaam si nee ne buur bi dana xam ne man sëñ Tuubaa yàlla mooy ki may jëral parole de ku ma laal yàlla nga laal ndax man li ma tax a jóg la mooy dundal suñu yonent bi sallallahu alayhi kon ku ñëw naan du ma fi dundal suñu yonent bi na nga xam ne de ah yàlla ngay léew toog de yéexal mu xam na saaligal amir boobule buur jeexlaa ci lu bir ne ani man araytuhoo sama gis-gis alhuda mooy njub kese wa tuxura ak laam dafa jàpp ne mbiram yëpp mooy ak sobe sobe rek ci lay nekk duñ jàpp duñ sangu du duñ nangam lépp loolu yëpp duñ ci def dara waaye dana xam ne boobule buur ci lu bér na man sama gis-gis daal mooy njub rek ak laab fexe ba laab di laabal nit ñi fexe ba jub di jubal nit loolu rek mooy sama mbir waaye nag amaa di leen fekki seen dëngati seen jubari déedéet loolu buur bi dañ ko xam defe naa ne buur bi laataa mooy dee xam na ko ñam fi bàyyi itam xam na ko arda alag na al amira buur ba kan xayru baaxin ngën ci aji des safaa kook sellal na li jannatil di aljanay bél ga albaqaa sax ga wakafaa te doy na doy na li saalikal amiri ñeel boobule buur mawtaani ñaari faatu bilaa nihayatin ci lur muy am yemukaay uddu xookatan mbir mu doon ku ñuy reetaan lan yuqbalaa te dee su ko nangul hmm, laa ilaha yàlla mi nga xam ne mooy ngën ci aji des moo alag buur ba gis nga waxaan na ba tey yàlla ba léegi mu ne yàlla alag na waaw ah, yàlla mi nga xam ne moo sellal aljanay biel ba man sëñ Tuubaa fa laa war a dëkk buur bii nag di ma doon ma gundu xatal doy na ko parce que faatu na ñaari yoon faatu na fii cëdu na bu yomal xalaame ñu dugalaat ko safara mu doon ñaari faatu xam nga nit ki jullit bi benn faatu laa am mooy bu deexee rek jeex na afa maa naxnu bi mayitiini ilaa mawtatunaa luula wa maa naxnu bi maasibiina kon koo digg ñuy mbugal ëllëg yomal xalaam ñaari faatu lay faatu kon bu amir bii nag moom dafa faatu ñaari faatu te faatu yu métti la bu dee ceedu laataa muy faatu na coono yu yi itam ëllëg yoon xaar bu ñu ko dugal coono yu métti lay daj moo tax ma ne nit ki jullit bi benn faatu la bu deexee rek jeex na afa maa naxnu bi mayitii ni ilaa mawtatanaa luula wa maa naxnu bi maasibiina kon koo digg ñi mbugal ëllëg yoon xaar ñaari faatu lay faatu kon bu amir bii nag moom dafa faatu ñaari faatu te faatu yu métti la bu dee ceedu laataa muy faatu daj na coono yu métti safara yi itam ëllëg yoon xaar bu ñu fee fay dugal coono yu métti lay daj moo tax ma ne li saalikal amir mawtaani bi laa nihayatin boobule buur am na ñaari faatu te faatu gu amut amut fu muy yem faatu addunam faatu gu metti la dañ koy mbugal ba kere bis ci di jot buñ ko dugalee ci safara itam dañ koy mbugal ba ila axri dañ koy mbugal moom daal dañ koy dëkk rek ci mbugal te moom rek ñëpp dañ ko def télévision di ko reetaan rek reetaanoo kaay la reetaanoo kaay xam nga ki jàmbaaroon yore adduna yëpp di yilif ñëpp ah waaye léegi fu ne ñëpp mu ji jippi la ñëpp mu ji gotti la fu ñu toll di la reetaan ngir torotaange gi la daal am na ñoo xam ne la dañuy wane na dañoo ànd ak yow dañuy wane ne sa soppi la waaye bis boo nekkee ci ay tolo tolo ñu lay ree buur bi looloo ko dal noonu suñ tubaab jara jar ko lay ndeysaan qultu wax naa wa inni man bil kitaabi baaxin maa ngi ànd koog téere bi yàlla mi fee sax ba faw wa xayri lurut moom ànd wa xayri lurut moom ànd ànduma moom lu dul moom rek ànd ànd ànd àndumaan li xaaliqi tibaax ñeel na yàlla miy aj asamaane juróom-ñaar nu ñu déelante alaahu la si xalaqa sama saawaati tibaaxan tibaax mooy asamaan ni ñu tegalante te benn bu ci nekk bokkut ak bokkut ak sa morom bu dee suuf moom benn matière la juróom-ñaari suuf yëpp bu dee asamaan nag bii përëm la bii xaalis la bii nangam ba juróom-ñaari asamaan loolu mooy tibaax nee ne wax naa ne man suñu toog fu ma toll maa ngi ànd ak yàlla bi lu dul moom rek du ko àndal lu téere yàlla mi nga xam ne mooy aji bind euh, asamaani juróom-ñaar moo tax ma ne xultu wax na ne wa inni man bi kitaab maa ngi ànd koog téere bàqin yàlla mi fee sax ba fa wa xëyri yi lu dul moom rek ànduma ak moom li xaaliqi tibaax ñeel yàlla mi nga xam ne mooy aji bind li nga xam ne mooy asamaani juróom-ñaar yaa xayu yow yàlla muy aji dund ji te doo faatu yaa qayyuumu yow mi aji taxawee say mbiri jaam sëlli julil bi salaam gàndu koog sëlmal ala safiha ci kaw yonente bii aji ramu almuntaha ka dikuñ tànn almaax yi ka aji far li nga xam ne almalaam mooy yeddaange yi yow yàlla maa ngi lay woo yow mi aji dund te doo faatu tey taxawee say mbiri jaam jullil ak i sëlmal ci bi nga xam ne mooy aji ramu mooy kañu tànn ka mooy aji far lépp luy xeeti ya mooy ki nga xam ne ku ko topp rek lépp luy xeeti ya daange da dindee ko ci yow yaa xayu yow yàlla muy aji dund ji te doo faatu yaa xayuma yow muy aji taxawee say mbiri jàmm kawin na nga li lii ñeel ma almuna li nga xam ne mooy sama mbibét fii abadin ci luy sax ba faw bisran mbir moom ma doon mbégte man sëñ tubaa li kulil ummana ñeel mboolem booy wóor ñi tabax ummana i dañoo daga am sa gi yow yàlla muy aji dund ji te doo faatu yow muy aji taxawee say mbiri jàmm ñëpp yàlla di jox lu ñuy lekk nang ma nekkal ci samay bëgg-bëgg nang ma nekkal samay mbébét ba faw moo xam fi ci na moo xam ëllëg yemal xiyam waaye nag mboolem ñi wóor ñi te baax ñiy dugg aljina ñëpp naa doon seen mbég ma rek la ñuy bégee nag ma ko defal musaliyan mbir moom ngay aji julli xan nii jëlee ci man yow yàlla maa taslimi ànd koog sëlmal ala la si ci yonente bi nga xam ne xidmatuhu liggéeyal liggéeyalal ko de taxlimi mooy sama micc taxlimi mooy jàngale yàlla na nga julli jëlee ci man lottu naa ci waaye nag na nga sëlmal ci yonent bi salaay salaam mi nga xam ne liggéey bi ma koy liggéeyal de mooy sama micc heure bu ne daal sama micc ku ko bëgg a xam na xam ne liggéeyal yonent bi rek mooy sama micc alal la si julli ci yonent bi nga xam ne xidmatoo liggéey bi ma koy liggéeyal taalim mooy sama jàngale waaw su fekkoon ne benn daara la am daara ji daal boo fi ñëwee mooy liggéeyal sa bi salaay salaam képp yàlla na nu yàlla defal dégg